dal li nag jàmm mbokki internet yu partout TV yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy safoo saa su nekk rek di ñu teewlu ci ay xibaar dañu koy daal di door rek la nga xam ne moom moo daal di xew niki tey foofale ca diwaanu RTS euh, te du lenn lu dul rek maanaam jokkalante ak leng gi nga xam ne askanu sunu gaal ñu si baree bari ña nga ko doon xaar di nag mbégteeg bànneex bu nga xam ne rek daal di nañ koy yeewoo niki tey gannaaw première réaction moom mi di Pape Alé Niang daal di ne kat fas yéene naa daal di démarrer lii di ab liggéeyam niki tey ji ci àjjuma ji gannaaw rek ba mu jokkalanteeg ay lenge ki nga xam ne rek moom moo di Racine Talla ci mbir mi ni mel nag tax ñu bare bari daal di taxaw nekkat ak coppite dina am comme nam ko yëkkatee moom mii di Pape Alé Niang di xam ne nekat képp koo xam ne rek da ngaa yor sa carte am nga droit nga daagu buntu RTS nekat man mi foofee lay liggéeyee comme que nag ñu bare bari au début dañ ko daan nëbbu rek nga xam ne amoon nañ ko ci suñu kërug liggéeyukaay gii di RTS te ñu baree bari jaar fa di ay journaliste yoo xam ne rek yu mag a mag a mag lañ wante rek ñàkk njiit loo xam ne rek lu dëgër la te tamit gëm boppam ci liggéey ba nga xam ne moom lay def tax rek ñu baree bari daal di leen di won a jot a delloo gannaaw bu baax a baax ci deltu gannaaw googee nag tax na rek ñu daal di gis que ni am na ay jafe yu nga xam ne rek ma di am ci kërug liggéeyukaay googee wante kii di Pape Alé Niang fa seeni yéene dikkaat daal di tegaat lépp rek ci yoon wi ci ay kàddoom ne kat fas yéene naa daal di def kéem talaay kàttanam ci li nga xam ne rek moom moo di liggéey bi rawatina nag awale ko ci yoon boobu ni ko ni ko rooj